la ñuy kontaan ci moom waaye may leen ko loxo waaye yaay ñi ñeme dëgg billaahi yaay nitu dëgg ana ñu kontaan ci Guy Marius Sagna yëkkati leen seeni loxo waaye bët ki Sëriñ Tuubaa Mbàkke maa bëgg ci yow billaahi walla yàlla sa jàmm yàgg bi ci topp mooy xam nga nit ñaa ngi jooyoo yaay yaa ngi jooyoo suñuy doom dañoo feebar ci kaso yi mënuñ leen a seeti mënuñ leen a yóbbu mais Macky déggu leen Macky seetaanu leen Macky liirul journalu Sénégal seetaanul télé Sénégal lijjantiwul problème bi xew Sénégal Macky lijjantiwu leen Macky xam nga la lay lijjanti Macky mu ngi Occident Macky mu ngi ci réewu tubaab yi léegi maanaam problème mu euh, kaaw international yi yooyu la makki di toppatoo léegi kan la Poutine di àndal fan la ñuy jokk yan militaire ñooy dem xeex bi fële la Macky mu ngi ci beneen dimension <laughs> yéen Macky yàpp jim leen yàpp xamu leen sax ban à ce point man mosuma imaginer ne président mën na yabee nii peuple peuple bi di souffrir di jooy. yaay booy bul jooy maa la ko ñaan rek yaay booy bul jooy boo jooyee rek dañuy jooy yaay booy xool yi neexuñu li ñuy dund ñun ñëpp ñoo ko bokk métti na ba ci kanam yàlla te ku ne méttiwul rek naa fekk nga bul jooy dañ ko tooñ yóbbu ko kaso ngay seeti sa doom ñu ne la doo dugg nga yóbbul ko lekk ñu ne la du dugg yaay booy muñal du yow rek yaa koy dund ñaata yaay lañu tooñ seeni doom tëj leen tey ci kaso yi arbitrairement ñaata yaay lañu tooñ seeni doom tëj leen tey ci kaso yi ñu nekk ay détenu politique kenn mënu leen a seeti mënuñoo wax seeni soxla ñii am nañu ay gaañu gaañu ñii feebar nañu yóbbuwuñu leen hôpital toppatoowuñu leen yaay booy nguur buy daanu nii lay demee yaay booy ñii jàpp nañ ni lii ñu nekk mooy dëgg te du jeex yaay booy muñal te xam ne yàlla mu ngi ànd a yéen billaa